mooy sama tool bu rek du ci sant boobu lay tàggu yéen. ñu ne que ñun itam ci lu wér ko aju ci yow ak lu bokk ci yow duñ ko laale ko aju ci yow mooy ñan. sëriñ bi nee képp kuy jublu benn ñu wax la ilaha illa allahu muhammadu rasulullah kooka kooka mën naa wax ne si maamu asri badallahi fi yadi wa maa umtuhu min malikin qaada fi andi nga am xol boobu ak taxawaay boobu mën naa wax loolu yi ndax moom liggéeyam yëpp weesu li Moustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu al-harra wa inni ahmad loolu yonent rek la fi nekkoon di ko bay sosaatu fi leneen sunna sa day yeesal Sëriñ Tuubaa nag foofu mu teg yonent bi ak li ko yonent bi jaral foofu rek la sëriñ Soxna bi xoolal Sëriñ Tuubaa ne ko dan fas yéene nekk Xaadimul Xadiim loolu rek moo doon bëgg-bëggam waaye nag ku xam ku ne xam nga ne nangu la ko ndax na mu ko ne woon dama lay teral daf ko woon njëriñ sëriñ am sëb jaxate indi ko booba topp toll na ci fukki at tepp wattu na alxuraan te gaa di jël bu yàgg sëriñ bi ñëw Tuubaa boobu sëriñ bi laajee ba xam ci alxuraanam toll mu am lu mu doon wax ak moom wax yu bari am na ci lu sëriñ am sëb fekke waaye am na ci loo xam ne ba mu ko koy wax moom moom rek nekk ci nekk kooku sëriñ solo bu nekk loolu xamoo am ca lu mu daan nekk nii nee na dafa yëkkati ataaya taal ak fourne di tàngal ci loxo baraada ba tay ba baraada ba noppi mu xëy ko muy naan mu ne xam nga lu tax ma xof ba noppee ba noppi mu yéene nga boole ci dox ko ne ko tëjee mu tëjee mu ne xam nga lu tax ma tàngale la ataaya ji ci sama loxo mu ne ko déedéet bàcc mu ne xam nga lu tax it mu ne ko boog yéene yi jox la ko mu ne ko déedéet mu ne ko bëgg nga am teraanga ak bëgg nga fonk alxuraan kon nag mel na ne bëggam doogee daal alxuraan nekkal na ko ca teral na ko yi ba kenn ku ne xam ne sëñ soxna bu nit ku yàlla teral la ba teraa ngay sëñ bu sëñ bi ñëwee kenn nag bu teral te ko ci ku ne teg ci bëtam ndax sëñ nga bëggoon sa njaboot moo la ko defal ba tax na ku ci ne yóbbaale la sa kër kon na wàcc na wàccoon ak boromam bi ko bind wàccoon ak moromam yi mu bokkal sëriñ Tuubaa wàccoo naa njabootam mooy nun ñii ndax ku jëlee yar na la jàngal na la teg la ci yoonu Seexul Xadim wàccoo na it ak sëriñam ba gis waajuram ba keroog mu koy fekk muy Seexul Xadim mag woon ci ak kon nag yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla na nu yàlla yàlla yokk leeram ba taas na ci barkeem ci dara ñu Seexul Xadim kon nag li ci des mooy nun njaboot ak nun ñi di jàng bi nanu xam ki nu yàlla séddee nu topp ko te roy ko suñu kéem kattan te fexe ba matuñ mooy que tekkiwul ne xam nga yow da war a mel ne moom waaye nag loo jël ci jikkoom rek moo doy kon day fexe ba mat taalibe bi sëñ soxla te itam loolu li ko may mooy tënku ci ndigali sëñ Tuubaa yi maanaam ndigali sëñ Tuubaa yi mooy ndigali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndigali suñu borom jënd ko fenn danaa ci tënk yu gàtt yoo xam ne sëriñ bi daf daa def lépp lu addis indi wala alxuraan indi ko te lépp ci nit ñi dégguñ al arab te bëgg leen ko leeral. ñu bari xam nañ ne njëriñ fu mu daa génn fu ne fenêtre yi ak bunt yi dañ koy def ak kees bu def suuf bu fekk seen toog toog bu yàkkamti ndax amul jot di tomb ay tomb di leer nit ñi seen digg seen borom da ngay leen te leer loo xam ne nit dana jàng ba doon fóore te doo ko xam ci Yàlla bu dee la wax ci soxla woon nga xam ko ba nga mën a jàng loola yooyu nag danaa ci tàng yu gàtt ñu bëgg daana wax ne ngeen am fulla daana wax ne na ngeen am fayda daana wax ne ngeen faru loolu itam daf la ko ci waxam yi daal nee na fulla mooy loo soli soli ci mbir fu dem lu baax yem nga mooy loo tàmbali ngir yàlla nga yemale nekk ci yow képp ak ëpp na sëpp ak ci nee na farlu mooy li ngay nga sàkk ko waxtu boo xam ne bu jotee loo jàppale bàyyi ko lépp léegi loola dara ko doon mën a tax tey incha mi ngi mel ne tey waxtu julli jot nga baax ko julli si waxtu wii am geneen gàllankoor loolu la mën a fekk ci misaal bu ñu fekkoon ci daje bu mel nii kenn ku ne xam ne waxtu bi jot na te waxtu bii nga ko baaxoo defee nga nga def sot jot julli ci door a del si engrais la ngay def loolu sëñ bi bëgg a julli ci farlu nee na mooy li nga baaxoo def bu waxtu ba jotee lu mu la mën a fekkee nga bàyyi ko dem defi loola door ni ci seen firi la ñu it loo xam ne téere yi wax nañ ci ba sonn mu firi ñu ko ci kàddu yu gàtt muy al iman al islam al ihsan mu ne ma firi leen lan mooy liman ci yéen ci ñi muy waxal jàkkaarloog ñoom nee na liman mooy loo am nga xam ne yàllaa ko dogal loo am nga xam ne yàllaa ko dogal loolu bu ñu demee ci tawhid mëni su da indi lu gën a wóor loolu ndax nit bu xasee gëm loolu gëm na lépp gëm na yonent yi gëm na téere a gëm na bis penc yi mboolem li iman li nga xam ne bala nga ko mën a gëm da nga am iman boo gëmee lu am yàlla nga dogal loolu dugg na mu andi islam bon islam mooy lan nee mooy loo am génn ci wàllu yàlla loolu it boo ko seetee mboolem ni ñuy firi lislam dugg na ci biir ndax koor da ngay génn wàllu yàlla ci sa yaram asaka da ngay génn wàllu yàlla ci sa alal aj da ngay génn wàllu yàlla lu mu doon lu ne yaa àq yàlla da ci yàlla am ci sa jëmm ak ci sa alal nga génn ko yow loolu tënk ci gàtt baat yi gàtt ne mooy lislaam loo am génn ci wàllu yàlla ne mooy lislaam mu def ihsaan nee na ihsaan mooy lu sunu borom dogal mu neex la ci gàtt. man laa wooyee mag ñi ci njëriñ wax le maa leen woowoon tey jii ndax jamono dafa nekk ci kanam yoo xam ne dafa nit ñi neex te naqari lool ndax jamono dafa yoo xam ne bu boobaa. nit ñi dañuy mën seen bopp ba tey dañoo mën seen bopp. ñu déglu bu ci kanam yoo xam ne dafa nuru gi reex dana xane lool ndax nee na bu boobaa nit ñi dañuy mën seen bopp ba tey dañoo mën seen bopp. nee na boobaa nag ñett ci taxawul nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey doy loola la. daana wax ne itam jamono mi ñëw joo xam ne na ngeen def seen lislaam denc ko ci bañ ba ñu wax roog seen te ku leen a naan baña ndax bu ngeen bañu bu ngeen naa mën ñu waxal ci xanaa loolu mooy li alquran dafa ñu tudda ak seen masu am ñu déglu am seen lislaam ak jamono yoo xam ne na ngeen def seen lislaam denc ko ci bañ ba ñu wax roog seen mooy bañ a sori ci bañ yi ndax bi ku leen mu naa naka moo gisul islam islam yi nga xam ne toog Serigne Touba ci la daa xëy di ci gont nekk ci indi sallallahu alayhi wa sallam dañu koy jël islam yi bañ ko boole dara te sàmm suñu tari bi ci Serigne bi dafa rafetal ko te bañ a boole sëñ ba dara bañ ko jënd dara ndax sëñ bi euh, dara ñëpp jënd ko dara lu dara rëy rëy sëñ bi ëpp doole la ñu jàpp ci sëñ bi ndax sëñ bi da nga ne loolu mooy dénkaan yi nga xam ne ci gàttal tënk nañ ko ci baax sëriñ bi ci njëriñam yooyu nga xam du jeex mukk ñu mën ko jëriñoo li ci des nag mooy suñu digg sëriñ bii di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu wutu si sëriñ Soxna yi di gëm ak taalibe yi ak njaboot mun ñu di rakam ma wax ko ci nag ci turu njabootu kër yëpp tàmbalee bu sëriñ Abdoul Ahad nga xam ne bis bii lépp ci loxoom lañ ko teg koo ci gis mu yëngu mooy sa jëwriñ moo la xëyloo ci tool bi moo la ci gortuloo moo la wax fooy aw waaye lépp ci loxoom lañ ko teg. dafa wóor na suñu borom tam roy ko ci mu teg ko ci loxoom ñun ñii ñëpp ñu ànd ak suñu borom ci liggéey boobu waaye moom la ñuy liggéey ci turu Serigne Abdou Ahad moom mii turu Serigne fa turu Serigne Fallou mii ak turu soxna may ak mi mag ci jigéen ñi ak ay rakkam ak mboolem turu daal bi yëpp laay wax. ñu ngi leen di seeral la ne Serigne Cheikh mi fu mu war a teg teg na ma la wax cër bu mu war a jox it xëy na ko jox na ma ko dama dama la ko a jox dara des ci yiir nañu aar nañu te xam ngeen ni sëñ Saal bàyyi woon na fi yan boo xam ne ku ne xam na ne yan bu gis dana la te yan na ko ni mu gën a rafetee te rëng-rëng jiwu dara suutu ci kon loolu la kon ñoo ngi koy seetlu ñëpp kuy dem na ko yóbbaale nga xam ne dañoo bokk sëñ ñoom sëñ kenn desut dañoo xam ne. jotaay bi ñu fi ñëw ma ne su leen lim bu ñu tuddee kër ku ne am kër bu ñu bàyyi mu mel ak cof la wala ak ñàkk ak lu ñu la boole dafa bokk ñoom nag wane nañ ne ñoom moom yëf yi boole wuñ leen ci dañ bi ba gis nañ liñ ci def lépp kon nag leen ci baax a baax a baax a baax nga tudd ne ni ma ko waxee ci ak rek dañoo bokk ñoom bokk diine bokk ñoom bokk deret bokk ñoom réew mi bokk bokk bokk fu ñu dëkk te li ñu bokk mënuñu ko séddoo kon nañ ko rafetal ñoom rafetal nañ ko na war mënuñoo dugg na ci lim leen ndax dañ ko bàyyi wala koo fàtte te nit day juum di fàtte te koo juum wala nga fàtte ko mën na ko da ngay gis noonu mel ne da nga koo coppale da nga yëngu te ñëpp lañ yëg ndax lii ku la ko defal ñu yëg nit amul ko tudd sax gisub suñu sonal bi dafa doon mbiru ñu ci noonu kon nag ku bàyyi si it yëpp ñu jàppal ci nekkal ci yéen nañ loolu kon dañoo bëggoon rek ñu jéggalu ci ñàkk a jëm gi nga xam ne kër yi diine yëpp mboolem kër yi diine yi fépp foo xam ne tànn islam maa nga fay tàkk ndaw jóge na fa kilifa nga jóge fa mbaa mu yebal ñu ne ne moom ay rakam ak i bokkam ñu digg jëmbal ko fi ñu jëmbal seen soxla boo xam ne ñoo bokk islam ji ñu sagal nañ kër gi ñu gën ñu sant bu baax a baax ci ko rek di ànd ak ñoom ci lépp di nga xamal kër gi seen kër seen soxla islam lépp la fi nekkal jërë ngeen jëf di sant itam moo leen tali bii rek suñu seex moom amul tali bi boppam ak tali bi kenn tali bi suñu tubaab yëpp dafa fay tali kon buy sant du dara ay tali bi boppam di sant tali bi suñu tubaab yëpp la am di sant jàpp nañ ci bis bi ñu ci war a jàppee xam ne nag doomu suñu tubaab lañ koy defal doomu suñu tubaab moom lépp lu tax lu ko tax a jóg lu ne tali bi yëpp dañ ci am ba séet ndax doomu suñu moo waxal boppam ne tarbiyee ji lay ay na si lay tarbiyati hayy la si lay sayru lay set ka tarbiyati hayy a doomu yaa ngi ngeen joxe seen doom man yàlla yàlla ma samay doom. yàlla yàlla mi nga xam ne day dund te du dee man moom a yàlla yàlla ma sama njaboot bokkul ak yàlla koo xam ne day dund di dee. moo tax ay doom mun nga yor kenn moo tax ñun ndamamuñ ko sax dañ ko sant yàlla ñii ko yàlla baaxee ñu doomi Sëriñ Tuubaa yi ndamamuñ ko waaye dañ ciy sant yàlla. am sëriñ yu mel nii da ngay sant yàlla da ngay jaar sa fukki loxo te doo leen jàppale sax yu waajur sëriñ bi la neex ñooñu ñaan yàlla yàgg na léegi taasuñu seen baax kon nag ñooy sant daayira yëpp ak daayira yëpp fédération daayira yi daayira Cheikh Khadim yëpp fu ñu mën a nekk ci dëkk yi ci biir réew mi ak biti réew seen ndaw ñoo leen fi seen ndaw ñoo leen fi ñu gën sant bu baax a baax a baax ci biir sëriñ bi mboolem ñun mbokk islam la bëriwul ci kenn bu ñu sañoon duñ bàyyi kenn ñëpp la ñu tudd waaye am na ñaar di sant yi kilifa bi réew mi ak ñu ko fi teewal ñun ñu toog di góorgóorlu ak préfet ak mboolem service service yi ñu am nii ñu leen sant ci bis bi kii nag dañu ci jàppee di ko def ci kër yi ñoom ñu wax ko ne ñu ngi leen koy sant ci kooku baax a baax di sant yi mboolem ñii ci kuréel yi mu bokkal réew mi ak ñu leen fi teewal kenn ku ne wane nga dem ci sa gis-gis sa yéen ci sa soxla bu fekkee nga ko ñoo leen di sant bu baax a baax di sant yi ñu jiite rajo yi c'est national ñooñu bëgg jël si ko di ko jël si waat ci boobu wet télévision ak rajo bi am lay ñu ngi lay yëbbati seen i kilifa ak cant yëbbalu seen cant baax baax ak rajo Dunia Ibrahima Diagne Ben Bass Ibrahima Diagne taxaw na ci baax a baax war a wax ci xëy ne da koy def ngir yàlla ndax sëriñ son bi noonu la toog fi xolam. kon mboolem jullit Sénégal yëpp damay ne jàmm ak xéewal boo xam ne day dafa mën naa daal ne ci ci daraja Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne suñu borom daf koo ubbi naa nga seen la nga xam ne lu ca tibb kenn du ko laaj doo ko ñëw kenn ku ne xam ne rek asaani rabbi futtixat yi wa sax saat li xayri asa dunya wa uxra wa barsaxu lu leer nañ la Sëriñ Tuubaa boo dem aqtaar bi fi mu sa àgg suñu borom ba ku jëm sa àgg suñu borom la ngay def mooy àgg ca naa nga seet ba ñu ne seet li nga soxla jël suñu borom dana mel ne dama koy taxaw fii ku waax ko egsi bi lu ma laa jox ko seexul ak yi nag bi mu dikkee laajte bi su ma doon ma jeexal jox ko loolu moo tax ma ne xasaay bi ma rëbb bi pour te at bii war sax saa nga xëy na asaar dunya woo xaaral war sax maa ngi seen suñu borom yooyu nga xam ne suñu borom daf ko Moussa sëñ Moussa ñu ne moom sëñ Saliou nga nee sëñ Yàlla Moussa nga nee sëñ Bara Deme nga nee wax ko sëñ Saliou ñëpp di ci kon nag noonu ñëpp na la ànd doon. sëñ bi dafay mel ni dañ si war a lu gàtt war a ndax suñu nag moom ci ma toog yëpp wax na ko ndax gàtt ñaareel bi day mel ni sëñ bi moom yow yaay jëriñ yaay jëriñ moom kër yëpp ndax loolu lu yàgg la ba tax na kon wax si biir kër waaye nag ñu ngi lay sant bu baax a baax sant ñu tam am na lu ci seet loo xam ne lu yàgg yàgg la ndax seetlu nañ ah dama sëñ Basiru dinaa su lay wax si bi suñu baat di miir kër këram bi ak kër def mu benn miir 76 day war a taxawaay ba nga taxawoon booba ba ren ñi doog a tërbiyee dajale nañu wane ne Cheikh mi kat fépp lu mu ci gën a sonn na dina tàgg loolu moom moom laa ko teg te loolu boobu wax ci bànneex sa taxawaay ak sa posture loolu rek mu tax mu wax te loolu nag yàgg na ndax 76 at tey wax loolu bu ñu demee ba tey nga taxaw taxawaay bi ñëpp gis ko. mel na ni da nga doon dox rek si waaye mu sax xam waaw beneen bi fi daje moo tax tey sax suñ dafa am fu mu xaw a nekk dafa noppalu waaye teewul dana liggéey ni ndaw mën naa seet lépp euh, waa kër gi bu kenn des ñun ñëpp daal nañ ñëw teew sax am ne yëf yi ay yoon la loolu nag seen saa yu bëgg moom benn lañu waaye daa fekk itam sa taxawaay rafet na. jàppee ko waajur da nga koy sëriñ tam nangu ko loolu moo tax sëriñ bi mere ko noonu. ñu ngi leen bëgg ñu droit ndax xam nga teg sëriñ bi ñu ngi def sëriñ Saliou xam nañ ko te ko waajur tax nga nga nga taxawaay boobu nga taxawaay xam ne yaa war a nekk njëriñam wala nekk sant boo xam ne du war a jëlee si yow loolu mooy taxawaay bi kon ñu ngi lay baax a baax di la gërëm baax a baax ah li si moom du ñu ci ndax sëriñ Saliou moom. waaw ah, xam naa ñaan bi dana doy waaye ni kon duñ ñaan waaye nag dañ ñaan li mu eh, rajo bu mu nekkoon tey jii rek Sëriñ Tuubaa jarale ko ndax loolu bëri maa ngi yomb a ah, rek waaw taxawaayam moom ak doxam ni ko sëñ bu waxee ak nga xam ne daanaka ñëpp xamaloon nañ ko waaye nag fàttali la loolu ah, wane na daal doyoon nañu wér-wér ci ay aaya ak ay yëf yoo xam ne. xam nañ ci ne pour que Serigne Touba ak teg sa tànk ci la Serigne Touba demoon tànkam ak li bëggoon ci la bëggoon moom rek mooy di am solo ndax bu ñu gisee ñu naan wala yeneen sonal naa laaw nag ñu naan sa loolu Serigne Touba bi moom bi ñu ko seetee danañ fekk loolu lu ci bari feeñ ci moom waaw ñu mel ne mooy ne alladina inna tanaam fii rek aqaamu salaata wa aatu zakaata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar kon Serigne Touba bi bokk na ci ñu mel ne waaye nag boo ko defee nag wala yeneen sonal naa laaw nag ñu naan sa loolu lépp am na ñu dana am taxawaay bi Serigne Touba wane na sëñ Saal bu wane bu leer nañ euh, taaj partem ñu naan Serigne ñëw itam nga yàgg fi lool yaa sarak bi ak ñun tari bi Serigne bi bëgg ci ñi nga xam ne ne nga bari bëgg nam bëgg Serigne ko def ko muy som Serigne Touba loolu lépp neex na ko waaye nag sos ak ñu war a tudd ñëwee ànd ak yow déglu yow loolu Serigne Touba ndax loolu da koy noppal te loolu mooy ci dëgg gi ñu dëgg la su ay sa jikko la waaye ñoom itam xam nañ ne nee na bokk bëgg-bëgg bokk lu ngeen bañ moo tax ñu ko gën a yomb ñu ñaan rek ñu yàgg ci lool daan la gën ñu yàgg ci gannaawam daan gërëm ak seen sànqal. dëgg ba si ñu ko jur sëñ Matar benn si moom sëñ Matar benn si benn bu na si moom Matar benn si moom yi ak maam Ousmane. ñoo bokk jàngagum maam Ousmane ngir maam Alxaaji Malick Si Sidi Mouhamed maa ngi ne toog teewal fii waa kër Alaaji Abdul Asiis ci tur maa gën Sëriñ Maodo waaye bii dafa wax aay bu yéeme boo xam ne moom fàttali woon Alaaji Abdul Asiis dafa ñëw fii di jaare si sëriñ Soxna benn muy Soxna Jaxate wala kenn ci jabar bi ci waa kër gi fi bàyyi ko woon ni mu dikkee waxu takkusaan la fekk sëriñ ci keroog si jàng yi mu nëbb maa ko boo takkusaan yëpp dama ko nangoo dama ko nangoo waaye bi ko ko waxee bi njëkk a amee taxawaay rek dafa daal di jóg bi mu dikkee sëñ Abdoul Aziz seen seen su rafet moom ci taxawaay ne ko sëriñ bi lii nga nekk ak lii nga nekk moo la ñun ñii say bokk ñax na bañ demee ba ci oto ba ba muy tàggu moom ne ko dafa am aaya bu suñu borom ne ci alquran boo xam ne ku ne yow mii ak lii nga nekk moo tax mu di ko wax daal di indiwaat aaya bii sëñ bi seen si wax léegi daal di a'uudu billahi mina shaytaani rajiim alladina in makkannaahum fi l ardi aqaamu salaata wa aatawu zakaata wa amaru bil maaruufi wa nahaw ani l munkar wa lillahi aaqibatu umuur daal di ko aaye boobu moom la ko sëñ Soy sëñ Soy dama ko ñaanal dama ko ñaanal dama ko ñaanal wala yëpp doo la ñaan ñu tàggoo dem aaye boobu du ko sëñ Soy bu si tuddee léegi di ci misaal sëñ Soy bi sama xel doo la gën si te ñoom bokk dama gën si kon dellu leen ci programme bi wax ni kii sëriñ sëriñ la ko ñu bër bi bër bi yar ko te diggante sëriñ sëriñ ak Cheikh Abdou Khadim Mbacké Alima Dawla benn soof bi ko sëriñ ak Cheikh Abdou Khadim Mbacké juree daf ko yëkkati jël léppam jëmal ko sëriñ sëriñ ko micro yi. dabel dabel boor sëñ bi borom baxante nga demee boor waaw nga demee إلى يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل ليكون بصيرا ونصيرا وداعيا إلى الله بإسمه وسراجا منيرا yéen mbokki taalibe yi ci ndigal lu sama kii di ko jox te te murit moom bu ñu ko joxee ndigal du sañ bañ tax na maa ngi leen di nuyu bu baax di tàmbalee nuyu bi suñ kilifa kii di Serigne Cheikh Mbacke te di ko sant bu baax a baax ndax xam nañ ne lii teraanga rek la ci jublu waaye nag ñun dañoo xam ne bu waxee rek. li ñuy wax ñoom bi ñu waxee bi suñu change mii suñu rakk bi mu waxee rek moo xam ji tàbbi nañ ci biir liñ yéene woon a wax ak liñ bëggoon a wax lépp waxaale na moo waralam bi nga xamee ne si jox nañ ñu kàddu gi ndax daanaka xamul li ñuy wax ndax liñ bëgg a wax lépp suñu rakk waxal nañu loolu rek moo waral lii ne ñun xam nañ ne Serigne Souhaïbou ak Serigne Cheikh melo sëriñ Serigne Souhaïbou moo nu yaral boppam mooy jàngalal boppam kon lu ñuy def ci bis bi looy xam ne ni ñun lañ ko defal xam nañ ni cëraloon nañu ci suñ bopp taw fee xaloon nañu ci boppam ba tax na bisam bu ne jàpp nañ ne awlawiyatu ba ña ngi ca kanam ñoo ñoo yore awlawiyatu ba la ñuy yaakaar ba tax na kon bu fekkee nañ doon xayamee ma waxe ak liñ doon bëgg a fàttalee ay jikkoom loola lépp yàlla def na ñu waxaale ko ci biir wax ji loolu rek moo waraloon bi ñu joxe kàddu gi ñuy gan wante nag li nga xamee ni si jox nañu kàddu gi li ñuy sant yàlla mooy di sant sëriñ Seex di sant njabootu suñu soñ bu mbàkk yi yëpp ak i rakkam di leen xamal ni mboolem ngeen ñi daaroon ci ci turu mboolem ñun ñu jaaroon ci daara ji ñëpp daal ñu ngi gën di fàttaliku ci bis bi nga xam ne fàttaliku la bu ñuy defal sëriñ soñ bu ñu ngi ciy fàttaliku bu baax a baax a baax tiraanga yi nga xam ne defal nañu ko ndax mooy eh, dimbali ñu ba yar ñu yaru lislaam dimbali ñu ba jàngal na alxuraan dimbali ñu it dimbali ñu it ci def ci ñu ay axlaax loola souvenir la boo xam ne duñ ko fàtt mukk suñ biirum dund mboolem ku jigoon ci daara ji ñoo ci bokk benn takk ñoo ci bokk benn nas ndax suñ say moom noonee ma ko waxee woon ci boobee ngir ma ko laajee keroog rek ñeenti baat yooyu ma leen waxoon rek mooy jikkoom te waxoon naa ko ci boobee nga xam ne si rajo bi ñëwoon na ci sama kër laaj ma ci tudd ndigal suñu seex loolee ma rek mooy ay jikkoom suñu soñe bu moom ku bëggoon alxuraan la suñu soñe bu ku bëggoon doomu aadama la ndax mooy li koy am yërmande la suñu soñe bu ku bëggoon euh, lislaam la ci boppam ñu sariya kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy ay jikkoom kon buñ ko dee fàttali waxtaan yi ngeen war a waxtaan yi ngeen fàttali ci mbirum yàlla rek ginnaaw waxtaan fépp mi ngi jëm ci yàlla rek fàttali fàttali leen fàttali leen suñu sooy ndax ci loolu moo doonoon dundam moo doonoon porte leen te euh, xol yëpp ngeen waxee fàttali ñu ay jikkoom fàttali ñu ndigal Sëriñ Tuubaa suñu xol booyaat na ci moom fàttali ko jëmmam mu porte laat ñu jëmmam ndax dina euh, <coughs> maa tan jeexul maxaalatu fil mar'i isaa saadafat hawan fii fuaadi wax moom la koy tax a rek mooy nga nàkk fi xoli ne fi ne kon nag wax bu ngeen fàttalee yàlla te ku ñëw ci mbirum jotaayu suñu sooy sa xel dem na ci yàlla sa xel dem na ci ni taxawoon sariha sa xel dem na ci nim taxawoon diine wax ji daal di réussir ñu ngi leen di gërëm te leen sant te di leen xamal ne lii. suñu seex ba bëri muy teraanga ci ñun rek ci ñun njaboot bi jaaram ci daal ji waaye wante nag eh, daanaka amatul liñ ci wax ndax liñ ci waroon wax lépp daal dina ci biir wax waxi seen soo ñu ngi leen di gërëm te di leen sant te di leen xamal ne eh, rafet nañ jot ci ne bis bii des koo tàmbali ndax tàmbali bu mel nii lu jafee jafe jafe jafeel waaye nag ci tax ñu di ko woote dafa yomb wooteel lool kon nag te yow mi koy wooteel muy Serigne Cheikh ak ñi nga ko àndal ñëpp it wax dëgg yàlla ñëpp sawar nañ ci wuy si seen woote bi ndax xam nañ ne yaa yéen si naa moom stajibu lillahi wa rasulihi izaa da'aakum limaa yuhyiikum ñu sant tey sant njaboot gépp wax jii may wax nag maa ngi nga xam ne ñoo jaar maa ngi leen di sama kàddu gi mooy seen kàddu gërëm di leen sant wasalaamaaleykum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 yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bi nga xamee ne jabootu Seexul Xadiim yëpp ñoo ko taxawal yore ko di ko doxal ñu ñëw fi teew ci bis bii ngir yëpp yëpp benn bu njëkk bi mooy ki ñuy defal bis bii suñu waajur la bu ñaareel bi mooy li ëpp ci nun moonu yar bu ñetteel bi mooy suñu sëriñ la ndax li fi taalibe yi ñu wut kon moom mën na la wax ne ëpp loo ngàpp la yomb kon fii ku fi ñëw nun la wuy si ku fi dem nun la dimbali sunu daayira bi nag li muy tegtale moo di ne sëriñ Tuubaa ñëpp la wax te itam képp ku jógoon ngir liggéeyal sëriñ bi a ñu sëriñ Saali kon nag nun ñu nekk ci biir xel mu daal la ñu àndal tey ñu lenn dañoo fas yéene jëf di sëriñ bi bëgg boole ko di roy ci ay liggéey bi war a def nag noo ngi te lépp lu mu laaj yàlla def na am na ci biir njabootu sëriñ Tuubaa ñi ko seex kon ñoo ngi ñaan képp ku ci am lu la lënt nga laaj ko fa ko war a laajee te bañ a lay jot ndax ijtanibu kathiran mina zanni inna ba'da zanni ismun bu loolu wéyee nag lu jëm ci borom bis bi ak yi woote bis bi muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké sëriñ bi bopp yëpp a lay sant te la gërëm ci bis bii nga wooteel bu tekk muy sëriñ Sohaybu Mbacké kon yàlla na leen sëriñ bi fayal lu kawe sa njox ndax bis bii ñëpp a ko yàkkamti woon waaye nag lu jëm lu te sëriñ Ababacar Diakhaté wax na ne lu yàlla fekk mu ñëw loo xam ne fekk ko nag loo fekk fekk mu ñëw lii foog ko yóbbaale kon bis bii bi ko yàlla fekkee rek la door a kon sëriñ Seex yàlla na nga ko yàgg wase ñu yàgg cee wuy si te yàlla defal la fan wu gudd ak wér sëriñ Sow bu nag seede bi ñuy def ci moom dañu koy tënk ndax mbooloo bu bari mën nañoo wax ci moom te kenn du ci bopp sama la wax te lu tax ñu mën a dajal ci sëriñ Sow ndax moom defar nit moo doonoon ak cëram ndax ku ne xam ne ni nit bu nitewul moo bàyyi may ñooyam sëriñ sooy bu daana fexe te nit nite moom ci boppam daana sonn ci ngir bëgg la nite te du la sonal daana fexe ba nga nekk nit bu lewet te doo doyee daana fexe ba nga amu fit te doo toll sëriñ sooy bu daana fexe ba nga xam li la war ak li la waru war la yoonu leer nañ woo xam ne boo ci jaaree te wàccoo ko deesu la jëm fii ci àdduna waaye deesu la a kon sëriñ Saaliw ci gàttal dafa daan jëlee nit ci lëndëm yóbbu ko ci leer kon bis bii bokk na ci wane ne liggéeyam bàyyee na ko ko mën a sàmm ba du néew kon sëriñ Seex yow ak njaboot sëriñ Saaliw gi yëpp ñoo ngi leen di siyaara ci bis bu tedd bii di ñaan yàlla ngeen yàgg ko taxawee te pas-pas bi nga am yow sëriñ Seex ngir liggéeyal sëriñ bi yàlla bu ko dara doon da nga fasaane képp ku teew fi yàlla faj ay aajam ci barke borom bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mat na bi Abdou Samad askan sa borom dugal ca borom xam-xam jox ko ku amum xel bu waxee rek moo xewle muy jataay bii di bii ndax day naan Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ibnu Cheikh Souaib ibnu Khadim Rasoul boo jaree ni ibnu Mouhamed ibnu Habib Allah ne ni Ahmadul Maxtaar ibnu Seydi Moxtaar ibnu Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Habiballah kon ban nu balla am li wér nag ci wér mooy Serigne Cheikh jataay bu rafet na yàlla yàgg man nag mënuma laa fay ndax Fati aw Balla ak Cheikh aw Balla bokk lu ndey ak bay soxna say jaxate amal na boppam ci Cheikh Souhaïbou sunu moom sunu yaakaar yi dina la xar noo lay ñu bitim réew nga jox sa tëral bi yëpp ndigal ni ku ma gis ku ne na ma jàppe ne yow loolu ak yaata laa bu baax waaye seex nanu sëñ Tuubaa seexal nanu seex wii suwul mbooloo kër gi yaa di daara ñun ñëpp la ko sëñ Tuubaa def kon loolu ak yàkkati laa bu yaata rek bu rafetal loolu waaye dër doon ko rëy mooy li ma waxal Serigne Moustapha Boury su bëgg nañu ci Porokhane tamit ba teel a jeex tamit ci dara jaay ci gën a jafe kon da ngaa demee rek ci sa dara ji waaye Serigne bi man xam kenn Cheikh Ahmadou Bamba ñun muy lu lay ñu war ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo fi jëkk ne yii may lim la tàmbali ci aadama ba fii ne te dootuñu ko dégg man li man ci yàlla kenn taxat ma di ko daj. te mënoon koo bañ a daj ci yàlla te bëgg suñ taw see a mu man leen man defar doomi bàyyam ci Serigne Bamba la jëkki ca la yem mustaam man li man ci yàlla defar doomu premier ak doomi jàmbur ci Seex Ahmadu Bamba la jëkk ca la yem ci misaal ko defar na la Sëriñ bu jëkkee loolu wóor na man li man defar sa doom yemale ko doomi jàmbur mooy seex bu fi nekk te sëntoo Mbàkke la la topp ba ci Ablaye Diouf Cër Diouf Lambaye sëñ Aliou Diouf Lambaye mii toog doy na ci jataay la nekk këram moo ni ci sunu kër yëpp te loolu sëñ Tuubaa rekk ko ma kon li ci des moo di ni nan fas yéene nag delloo sëriñ bi ñukkal nañu waa këram nan raxas sunu dënn yi yéeneen te barkeem bi yaatalante ko te barab bu ne lan fa def boo bëggee doonu sang yéene ko fa bu fekkee ba ngaa doonu su borom lébaluñ sëñ bi dara defuñu ko dara yàlla na may tawfeex rek mu ànd ak moom waaye wallahi al-aziim wa rabbul kaaba li sëñ bi defal defuñu ko doxoo ñor dara ji Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon doon ay gor barab bu lan fa nga yéene ko fa kenn ku ne nga raxas sa dënn woote buru saaman nga yéene ko murit boo si mu war loolu moo di jàng ndax àjjana yaa na lool te bu nu suñu borom ay yi bëgg nu ñëpp nu jëm kon addina wër tam a teraanga boo xam ne war nga ko seen ci mbaa kër sa xol la ca sàngal c'est pas normal kon nag sëriñ bi arab def ne xeerul kalaam maa xalla wa dal ah, maa ngi gërëm tey sant tey ñaan sa bés bii ak mbooloo mi ak waa kër Serigne Touba yi fi nekk yépp liñ bëgg yal na ko yàlla defal àddina ak àllaaxira Serigne Abdou Samad wax nga fi lu fi jafe lu néew ci kër te loolu rek war am ci kër koo xam sa juddu xam ne nga mel ak te nga jànge fab kàddu kër Serigne Souhaïbou bu képp tàmbalee ci Abdou Lahad meetoo ba ci Fallou ba ci Seyrat ni benn dank ngeen benn takk ngeen takk bi nga takk seex fii te muy dëgg ci yow gor dëgg ko man te bul woon dëgg doo ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ni rabbul kaaba man lu ma am lu ne moom la yaakaar 1935 la sëñ Modou Moussa yóbbu kër maam mu bokk sama ndey ndey bàyyi lu ne sëñ Saliou la yaakaar man nii moom lañ ma ko jëkk jox 1944 yàlla dogal jëlal lu ma saa bay si ma 1945 laa jàngal xaram loola te ma yaroo ci moom dem naa ba bayti lay xaram gis naa lii muy liggéey ci jumaa jii di naanu Serigne Touba di néegub yàlla bi ma ñaan suñu borom foofu ni yàlla na koy atam may mu àggale liggéey ba mu àgg nañ ko bëgg ndax sëñ Saali sëñ Saaliwu liggéeykat la yoonu murit day dund ci jëf te dundul ci wax moo tax sëñ Saaliwu di jëf te wax yoon bu dul sunu woo mbam ma ko yor ni politique parce que awatin wa min makrin muhim xiraatul Qur'aan amnun min nabi ومن فقر al-iman wal irada nuhayyikum bismil islam wa nufuq bis samadani الذي كرس حياته لخدمة الإسلام ولأمته سيدي ومولاي أبي مدين المغربي الكوبوي الشعيب الذي كلنا يعرف قومته في سبيل الإسلام عملا وعلما وتطبيقا لتعاليمه الغراء وأكبر شاهد لنا في هذا هؤلاء العلماء الأجلة الذين ترونهم اليوم تحت هذه المظلة هؤلاء الخطباء وكل واحد منهم ارتضى من سبي أبي مدين المغربي بهذه القرآن ولا أقول في حضرته أو في سماحته أكثر مما قاله الشاعر قدما فيه ألا وهو أبو أبو بكر شقيق مولاي علي بن بكر بسر حينما ألف كتابا في شريعة الإسلام سماه بقية المصلين القصع في متعلقات الصلاة الجمعة وأمر الشيخ شعيب أن ينصب هذا الكتاب بخط يمينه فلما فرغ الإمام بهذا العمل الجليل واستعصل المصنف أو المؤلف خدمة شعيب أخذ مسبره محرصا لهذا الخط الجميل فرحت